ñu dem Dakar ñu ngi am suñ benn collègue journaliste bu Walf mu ngi ci line bi ñu jokkoo ak moom allo asalaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi ñu ngi lay nuyu bu baax di am mbégte am la ci ligne bi pour waxtaan ak yow xew-xew ci ngi di fay di nuyu Sena téléspectateur di nuyu mbooloo mu mbokku Gambien yi ak seen diaspora bi yëpp. jërëjëf euh, Pape Pape moom euh, Walf Walfadjri euh, TV la nekk ñu am mbégte bu baax ci am la ci line bi léegi Pape ñu bëggoon a doore ak xew-xew yi am foofu ci senegal depuis di ci àjjuma bi. ajuma bi lu fa xew ci wàllum politique tension bu fa am lan nga ñu mën a indil tey ci jàngat ci xew-xew foofu li ko waral situation bi tey fan la toll ci foofu ci ci ci Dakar. ok ok Lamine maa ngi nuyu déjà ñooñu teew foofu ci sa plateau bi. daanaka ñoom. Mhm. li ñuy waroon wax yëpp euh, li ci ëpp wax nañ ko. Mhm. Euh, léegi dañu mën a jàngat euh, ci situation bi nga xam ne moo nekk ni Sénégal soo depuis ajuma. sànq am na sa kii mujjee wax ni mu ngi doon expliquer mbirum constitution Sénégal wa mo bëggoon ci indi leeral tuuti c'est-à-dire constitution bi article 8 euh mom mo jox yelef doomu Sénégal bu nek saa yo bëggee ñaxtu nga ñaxtu so ba paré mu yok ci mu ne léegi sooy ñaxtu soxlawul nga am. Euh, autorisation bu gouvernement soxla woo ko da ngay yéegal gouvernement ba pare mu daal di wax encore mu ne soo yéegalee gouvernement kii nga xam ne mooy préfet moom mooy xool euh, ndax fi nga bëgg a ñaxtu fi nga bëgg a jaar euh, mën nga fa jaar est-ce que du indi trouble fii léegi yoon daal di wax ñaari mbir préfet mu ne ko pour nga tere nit bu ñaxtu mhm. il faut nga wax nga indi ñaari firnde ñaari firnde yi mooy benn moo takk der yu doy te ñaar ñaxtu bii bu amee dana dana jur musiba mhm. nee na te ñaar yooyu il faut nga firnde indi firnde ba mu leer nañ ni que ñaar yooyu am na bii nag bu ci ajuma bi boo gisee mu xaw a tuuti doy waar mhm. mooy que préfet Dakar dafa jël arrêté pour tere di mu tere benn la indi mu ne ah seen kii bii ngeen di wax ñaxtu bii ngeen di wax du ma ko mën a autoriser because dafa am mhm. euh, am na ay yu ma njott ni dana am trouble ñaareel bi mu daal di génne benn article article bi naan L 61 bu électoral euh, code mhm. ne leen boobu tamit dafa tere ci jamono ji ku def propagande te article boobu waxul ci politique yi ci ñun nekk ñun ñi nekk ci média bi ci presse bi la wax ñun nañu tere ci diir bi bi ñuy wax pré campagne ñu def la ñuy wax propagande soo bi bu ma leeralee loolu affaire bi bi mu amee euh, ñële daal di forcing bi ñu defee forcing ci boobu nañu gis euh, ñu mel ni Euh, ay jaas Diaz Ousmane Sonko. ñu téye leen seen biir kër génnuñu. loolu ñu jàpp ne que ci wàllu constitution également. Euh, manquement la parce que pour que nga téye nit ci biir këram. koot rek koot rek moo sañ wax ne diw téye leen ko këram ci diir bi ba ci diir bi keneen amu ko. keneen amul euh, doole boobu. soo bi ñu téye ñaar ñooñu seen biir kër ñeneen ñi. ñu fekk leen fi ñu nekk dem jàpp leen ku mel ni Déthié Fall euh, ku mel ni Ahmed Aïdara ku mel ni Mame Diarra Fam ñooñu ñëpp may fàttali ni ay député nañu donc ñu am li ñuy wax euh, parlementaire immunité immunité loolu nag yaakaar naa jàpp yooyu moo bokk moo tax ba manifestation bi gën a jël doole léegi Pape Pape buñ doon ñëw tuuti li waral dégg euh, li nga xamante ne mooy euh, lu am ci ajuma bi lu waral protest bi wala démonstration bu ñu bëggoon a def dafa mel ni lu ñoo wax parrainage euh, ak liste bi nga xamante ne bu bennoo ak bu yeewi buñ bloqué ak yu mel noonu tey boo ñu doon indi leeral yu mel noonu lan lañ ci mun a jàpp tey ba waral tey yeewi mooy ñoom Sonko ak ñi àndal ba ñu bugg a génne di manifester ñu bañal leen ko. voilà pour mu pour bu lu gàtt te leer bi ñuy dem. dañu dañu code électoral bi dafa wax lu leer dafa ne te loolu ministre de l'intérieur moo ko firndeel mu jël benn arrêté daa di euh, nii la ñuy organiser élection yi soo nit ñi dañuy ñëw indi faciliter seen seen seen parrainage bu ñu tegee seen parrainage ba pare mhm. ñu xool ndax méngoo na ak yoon wax mooy soo euh, zéro virgule trois ba zéro virgule huit ci fichier électoral bi nee na bu ñu jàllee foofu bu ñu ñëwee ci sa ci ci foofu noonu nañu dàq ñu bëri ba mu des juróom-ñett juróom-ñett yooyu ñoom ñoo dem ñoom nañ ne léegi indi leen seen liste waaye fii problème bi am mooy ci juróom-ñett yooyu ñu ñu ñu bàyyi ñu war a liste Benno Bokk Yaakaar dafa ëppale parrainage te yoon moo ne parrainage moom boo ko ëppalee bokkul mais ñi gis ni que bi Benno Bokk Yaakaar déposé liste bi daf ko déposé euh, le 4 ñeenti fan ci mai. may euh, ñu ci mel fan bi ministre de l'Intérieur gel jël arrêté daal di ne euh, mbirum parrainage bi ku déposer même bu ëppee kenn du la ko toppee bànna nga alors que yoon ci boppam code électoral moo ne boo ëppalee rek dañ la war a éliminer foofu fa su problème bi nekk beneen problème bi mooy bi ñu déposé mu am ci liste yi yi nga xam ne euh, dañu jàpp ne euh, respecté wuñu li ñuy wax parité parité mooy loi bi nga xam ne dafa ne booy def investiture élection da ngay teg góor teg jigéen wala nga teg jigéen teg góor léegi bi loolu amé liste Benno so am problème bi liste Yewwi am problème bi liste Yewwi euh, liste Benno bi biñ demee High Court mom donné ne comme liste Benno bi suppléant euh, ni liste e fofu mo am problème so dañuy éliminer liste suppléant bu Benno bu Yewwi Askan moom dañu amoon ka nga xam ne dañ ko dugal foofu ci liste bi te kooku motalul ñaar fukki atak juróom ñi woo na leen da ngeen koy dindi biñ ko dindee ñu war ci dugal keneen kooku ñu dugal nag ndekk ne mu ngi woon ci liste suppléant yi donc turam nekk ñaari yoon ci liste bi conseil constitutionnel mu ne ko bon léegi kon yow sa liste euh, titulaire dama koy dindi boo ko jëlee xayma no expliqué bu gaaw tey scorpion yu Gambia war a football ñu ñëw ba ci terrain bi arbitre bi mu ne non titulaire yi ñooñu du ñu football ñii nga xam na ñoo toog ci banc bi remplaçant yi ñooy football mm-hmm. donc loolu la bennoo loolu la waa yeewi askan doon kaas ñi ne loolu leer na léegi lo léegi ñu balaa ñu laa balaa dañuy éliminer waaw loolu leer na léegi ba ba soof euh, na temps bi ak yooyu ñu wax ci euh, lenn rek li nga xam tamit jàpp nañ ko euh, ñu bari ñu ngi ci seen xel dalu mooy affaire troisième mandat mooy taataam bu ñoo laam-laamee ndax Macky mun na koo def wala bëgg na koo def wala mënu ko def ak yu mel noonu tey foofu ñu bari tamit ñu ngi cee wax ci Sénégal gis-gis yi xal cee wuute ba ci juriste yi mooy jooji si tey lan nga ñu mooy en tant que journaliste ci ci ci ci jàngat ci loolu tamit ndax loolu tamit bokk na tamit ci taxawaay bi nga xamante ne opposition bi ñu ngi ko waxee ba gis ne Macky tey du bokk ci élection yi 2024 mooy euh, li nga xamante ne mooy 2020 2024. voilà bu ñu jëlee bu ñu jëlee ñaari firnde. waaw soo mooy constitution bi. constitution bi ci boppam moo ne. Mhm. Sénégal nit mënu fi def lu ëpp ñaari mandat yu tegaloo. ñaari mandat yu tegaloo nit mënatu ko fi def constitution moo mooy benn firnde ñaareel firnde mooy président Macky Sall ci boppam war na àddina fu nekk dem na fa nee na bu bunul def lu ëpp mandat bañ ko falee deux mille dix neuf euh, moom ci boppam moom mujjee woo ñëpp ne leen léegi amatuma lu may njuuj njaaj ñëw leen ñu waxtaan parce que man geexal naa suma paree sama mandat bi mais dañu xool dañu seetlu li ngay wax noonu dafa am solo te sax eh, kenn ci yéen foofu wax ko mooy mbirum protocole bu ECOWAS bi nga xam ne dañ ko signé pour tënk mandat yi fii ci South Africa euh, West euh, West Africa mooy dëkk bu nekk ñaari mandat nañu war a def ñu gis ni Sénégal daf ko bañ sign Côte d'Ivoire bañ ko sign ak Togo so loolu mooy li nga xam ne jàngat la mais la ñu gis tey jii mooy ñi nga xam ne nekk ci kër Macky Sall bokk ci partem képp ku ci taxaw ne waroo def troisième mandat moom dàq na la euh, génne na la ci gouvernement bi et tout ñu seetlu beneen seetlu encore mooy ba tey jii ñuy wax presque euh, li ko dese motatul ñaari at amul nit bu mu indi teg ko ci wetam so même prime ministre bi nga xam ne waroon na ko teg ñu yaak ne kii bu subaa moom mooy demal benno bokk yaakaar wala APR gisuñu ko lii nag ñu gis Sénégal ñun ñëpp dañuy jàngat te yaakaar naa ñu ni koy jàngat bi ñun ñëpp ñoo ko bokk bëgg léegi ñuy gis juriste yi di interpréter interpréter nag moo ñu indiloon musiba 2012 ci Ablaye Wade ba nit ñu bëri dee ci yoon bi li wax dafa leer nañ mooy que Macky Sall mënatul dem présenter candidature na mais fi mu nekk jamono yi wax li mu nekk di teg ci dëkk bi bañ liste yeewi jàll bañ yeneen liste yi nga xam ne ay coalition yu mel ni Serigne Boub ay ñoom Bougane Gueye Dany ñu jàll mooy que tey moom moo nekk di xool ñan la war a damal élection bu ñu jógee nag ci ñi élection yi boobu lay mën a toog daal di définir ndax dana nekk candidat ou mais li leer ba leer ci bopp ñun ñi nga xam ne dañuy seetlu ci wàllu politique fii Sénégal mhm. mooy que président Macky Sall dara munu ko tere mu nekk candidat soo gisee euh, matériel yi mu jëlal police jëlal ko gendarmerie recrutement yi muy def tout mooy la mu waxoon ci ay jamono li fi amoon dootu fi amati mooy maanaam bu dee nar nañu. ay bakkan nar a jërëjëf Pape moom ko def. ok jërëjëf jërëjëf léegi nga desandi ci ligne bi na ñëwaat ci yow. waaye ñu ànd euh, dégluwaat euh, vidéo bii nii am naa ay interview bi nga xamante ne euh, journaliste Sénégal defoon nañ ko ak kenn ci kilifa foofu ci jamono léegi mooy random bi li aju ci li nga xamante ne moom mooy ci wàllum ah, mandat bi ak ak yu mel noonu su ko defee ñu déglu kàddu boobu den ñu ñu ñu soog a continuer. vierge de la constitution tey nga wàññi suba nga yokk dootul mën a ans lay doon benn yoon la ko koromam di mën a amaat euh, mu dal di jeex président Macky Sall bu defee mandat wu bii nga xam ne sept ans la te conseil constitutionnel ne ko moo ko imposé mais ci loolu ñu bëri dañoo tiit ne bu wutee mandat bii ah ñu jox ko beneen mandat cinq ans est-ce que du jéem a laaj troisième mandat foofu il faut ngeen ci ay leeral mu leer ci boppu sénégalais non dafa leer naññ président wax na ko waxati ko te ni ñu ko bindee sax ci constitution bi leeral na mandat bii nga xam ne ci mandat ans te mu bëggoon ko wàññi moom ci boppam conseil constitutionnel ne ko loolu mënta nekk bu xasee ba jeex muy top ba ca topp cinq ans lay doon bu ko allah te ci donc président Macky Sall mënut 2024. weesu euh, deux mille vingt quatre ci boppu Sénégal constitution bi leer na ci loolu loolu kon ça veut dire que ñaari mandat dong lay def. mandat bii mooy bii bii tàmbali bii mooy benn ba ca topp mooy ñaar mu dal di jeex. dix ans maanaam nit mënatul toogati fii Sénégal lu ëpp dix ans. waaw léegi foofu la coow li mandat Macky Sall bu sept ans bii. bokk na seen décompte am mandat président Macky Sall bu ans bi. na ci décompte bi. kon ça veut dire que Macky Sall amul benen droit. lu mandat amul benen droit bu respecter les nga de la constitution bi wax constitution bi dafa nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. léegi daal le le mandat bi c'est le premier mandat de Macky il n'a droit qu'un autre mandat mu jeex. loolu moi, mooy nul xam nga nul mooy kenn kenn amul sañ-sañu def ñaari mandat yu tegale et l'opinion ñaari mandat yu tegale xam nga durée ak mandat de ben. objectif du mandat moo naan moi, moi, que le de est ce que mandat Macky Sall 17 ans en cours dafa beaucoup de décompte euh, mais pas parce que euh, réforme article ci un de caution, ne nul nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs Vous bépp président bu commencé ci Macky Sall bu fi falooti mënul def ñaari mandat yu am loolu mooy nul nul président bu mandat ku fiy toogati ñaa mandat bay ñëw juróomi at dong la mën a nekk mu def nekk juróom-ñaar bu bi ndax mënu la ci ñaari mandat yi ñu wax ko mu leer amul amul amul genn amul may ma at ma terminer samay chantier wala loolu amul loolu moom amu fi amatul dem ba ca biir mais moom at ma terminer jumaa ji ma doon def fii loolu amul ku def fukki at dem loolu daal la fi andi. lu fi xew le 23 juin 2011 misaal la candidature pour un troisième mandat tax fukki doomu réew mi ak lu teg ñàkk fi seen bakkan signal la boo xam ni. bu ñu jógulee bu ëllëgee daañu am lu ñu metti suñu réew. Sénégalais yi war nañ ko ne loolu ñun ci d'accord. voilà muy benn. Sénégalais yi war ko ñun euh, mandat dañuy bëgg ku fi yem def lu yem dem ba te bàyyi keneen loolu moom ci bi nga xam ni mandat njiitu réew la war a doon. loolu ku ne doo ko wootee. dafa am leneen lu nekk sa xol wala boog leneen lu nekk sa bopp lu dul njëriñu Sénégal. ok mu ngi noonu Pape euh, ñu ñoo dégloondoor li nga xamante ne mooy euh, ñooñu seen kàddu yëpp ñu ngi wax ci mandat bi euh, dafa mel ni jamono jooju bu ñu ko doon wax ñu ngi dégg fa ñu bari ñu ngi fare ak président bi ñeneen ñi ba léegi ñu ngi ak moom ak situation bi tey fu mu tellu foofu ci Sénégal dafa mel ni wuutee na trop. Euh, ak président bi taxawaayam dafa mel ni moom ñu bari dañ jàpp ne dafa dafa dafa dafa soppi doxalin troisième mandat bi bu ko mu ngi koo yootu daal bu ko waxakul sax wala euh, déggantaan ne wax waxut sénégalais yi bugg na ko waaye dafa mel nii daal mu ngi ci xelam ñu bari loolu leen jàpp. waaw mais Lamine xam nga constitution dëkk mu àddina bi yëpp constitution ci constitution dañuy tënku soo gisee mën na la président xelam bi yëpp ak ay nitam tey jii mooy troisième mandat.

ndeem yoon may ko ko te ñii nga xam ne tey jii ñoo taxawoon démb mooy kii ancien premier ministre Mimi Touré ñi taxawoon démb naan ko euh, mënul def troisième mandat deux mandats la mu a tey jii ñoom ñooy toogaat ci télévision yi di tiim sénégalais di jàkkaarloog sénégalais naan leen que président war na mën a def troisième mandat. Hmm. soo mu mel ni li fi xewoon deux ci temps nga lay Wade mhm. ay nit faatu ci ñàkk seen bakkan neewuñu di jàngat loolu te fu mu nekk nii ci diiru benn at di waaw dafa mel ni euh, jafe-jafe am na ci line bi waaye Pape Sène euh, Pape Sané foofu ci Walf euh, ok waaw waaw mën a jànkonteel bu muy am ci diiru benn at jànkonteel muy am ak euh, opposition bi rek mhm. li mu jur ci ay problème juróogum na soo lu toll ni ci fukki nit ak juróom ñett ñu ñàkk seen bakkan nit ñi nag ñun ñu ngi jàngat di xool ni que bés bu waxee waxu troisième mandat lu raw loolu dana ci rot ci ay bakkan parce que euh, yaakaaruma ni que sénégalais yi mun nañ ko nangul la nga xam ne nañ ko ablaye jërëjëf jërëjëf Pape euh, Pape Sané foofu ci wàll xam naa ne euh, euh, am nañ la amaat ci ci laan bi wala ba nga dem rek maam am na loo bëgg a laajte. Pape benn question laa la mën laaj boo xoolee tey problème bi ci wàllu élection bi ak actuellement lii am nii wàllu parrainage la te après présidential élection bi de 2019 dañ gis ne ECOWAS bindoon nañ nguuru Sénégal won leen ne. yëfi parrainage nañ ko tegee boor ndax niñ koy defee jaarut yoon tey bu demee ba problème ECOWAS African Union nekk fi di dànkaafu sunu ay nguur waaye duñ koy jëfee loolu tam lan moo ci sa jàngat waaw li nga wax euh, dafa am solo dafa am solo parce que fan yii passé ñu ngi invité woon ben ku jege Macky Sall bi mu ñëwee toog li ma ko laaj euh, yan da ngeen ne Euh, e-, ECOWAS moomul Sénégal mu ne ma waaw man ko su ECOWAS boobu ay at ci gannaaw moo leen waxoon ni que fële ci Gambia dañu jàpp ni que am na président bu fa nekk dafa bëgg a contester ay élection dem leen ngeen jëlee ko fa man ko soo da ngeen dem jëlee ko fa. ngeen mm-hmm. jël xaalisu Sénégal jël xaalisu euh, Côte d'Ivoire jël xaalisu Nigeria. dem jëlee ko fa mu ne ma ma ne ko fële ci Guinée Bissau loolu bu mu amee da ngeen demaat dem dafi loolu so ndax lan ECOWAS boobu bu ñëwee taxaw ne leen lii da ngeen ko war a respecté te ñun ñëpp ñi nekk ECOWAS ñoo signé woon euh, protocole additionnel boobu ndax lan ngeen bañ ko ñu ne non non ñoom déglu de kooku mu ne non bañuñu ko so looloo taxoon sax ci election municipale yi ñu mujjee def mhm. ñu bàyyi amul amul parrainage. exactly, mais gis nga

loolu nag mooy problème bi nag xaw ma nag léegi euh, bind naa waa ECOWAS pour laaj leen na leen léegi lii am Sénégal yéen tey lan mooy yan seen position ndax da ngeen di jël ay sanction ci Sénégal wala doo leen jël sanction mais ba ba léegi tontooguñ ma. Hmm. waaw ok loolu leer na ba dafa mel ni su ma génn suma ma beneen naataango kër waaw euh, euh, balaa moo dem rek ñu baal ma moo ñante mu ne am na lu mu ko bëgg ah, laaj. ci ci tënk rek. Mamadou Lamine nu euh, Aminata Touré génna wax ne mënul am waaye dixième vidéo am na Barthélémy taxaw ne kenn mënul tere am Macky ak ñoom Ousmane ñoom bu ñoo wax loolu fan leen ko plog fan leen ko wéer si constitution o den doon wax waxi par par la wala den doon wax waxi den ànd ak Macky allo Pape. baal ma baal ma dégg ma bu baax. mën a déggul jël ñëwaatal. ok lu ma miin mooy ne gis nañ gis nañ Aminata Touré ak former prime ministre bu Sénégal wax ne ne Macky amul raay du def euh, troisième mandat bon gis nañ Barthélémy ak Sonko ñoom ñëw taxaw nañ di wane ne gisuñ lu war a mën a tere am Macky troisième mandat Barthélémy sax vidéo bu ñu seetaan na ne du manifester pour lu tere pour Macky bu mu am troisième mandat ñoom bu ñuy wax loolu fan lañ ko tegoon si constitution bi lañ ko teg wala dañ ko waxoon si seen bugg a bugg rek. waaw euh, vidéo kiiwu wu Barthélémy Dias boobu déglu naa ko bu baax a baax a baax a baax euh, wax na dëgg xam nga constitution bi biñ koy bind dafa am la nga xam ne daf ci leerul dañ ko ci bàyyi mhm. loolu la Barthélémy wax ne lii sénégalais yi bàyyi te nga xam ne leerul leerul troisième mandat moom du génn manifester parce que sénégalais yi ñoo dem voté constitution boobu. ci biir foofu bi ñuy def modification euh, di indi clause li ñuy wax ci tubaab clause d'intangibilité ci mandat bi dafa am la nga xam ne binduñu ko mu leer. ok waaw binduñu ko binduñu ko mu leer mooy que ndéem dañ ne nul ne peut faire deux mandats successifs. ñaari mandat nit mënu ko def nit mënul def lu ëpp ñaari mandat mais dañu fàtte woon wax ni que nit munul def lu ëpp ñaari mandat mandat président Macky Sall bi mu nekk nii comme Ablaye Wade ni mu ko defee woon 2001. mandat Macky Sall bi mu nekk nii si la bokk. lu foofu la foofu la leeral foofu la am lënt-lënt bi foofu la nekk. ok moo tax Barthélemy ne comme sénégalais yi ñoo voté loolu. lu ñu lu ñu voté te ñoom nee woon nañ buñ ko voté donc moom du manifester. alright uh, jërëjëf uh, Pape Sané bu Walf ñu ngi ñu gërëm la uh, santal bu baax ci waxtu bi nga jël pour wax ak ñun xam naa nañ la amaat yoon ñu ngi bu baax baax. ngi di jaajëfal di nuyu suma mbokku di leen jaajëfal encore si liggéey bu rafet bi yàgg naa la ko wax yàgg leen vraiment. man sama mbokk yi Dakar dama leen ko wax dama leen leen di xalaat que. ñun yenn réewum africa yi ñoo leen raw démocratie da ngeen di juum ma ne ko soo dem leen dëkk yu mel ni Gambia da ngeen gis ni que euh, journalistes yi liggéey gi ñuy def euh, autorités yi tamit dañ leen yombalee liggéey bi parce que tey jii tey ci South euh, West Africa. Mhm. yéen rek am loi accès à l'information Gambia rek ko am. Mhm. accès à l'information. Mhm. la loi boobu buy may journaliste fu la neex nga dem uti information ñun amaguñ ko. donc maa ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje di ñaanal jàmm Gambia di leen ñaanal naataange xewel gu bëri bëri bëri. amiin jërëjëf.